thank you mbokki concert bi nga xam ne rek daan ko amal foofu ci arena bu gannaaw rek bu mu ko duppee grand bal moom nag Youssouma jigéen Ndour bu ñu xaymaa rek boobulee concert nit yi nga xam ne rek daan nañ ko fa wuyu nit yi nga xam ne rek wuyu nañ ko fa toll na rek ci 15000 ci ay fansam mu doon rek mbégte contentement bi nga xam ne rek daan nañ ko gis ci xar xar kanamam ca boobulee concert moom nag Youssouma Jigéen Ndour ñenn ci ay fansam rek daal nañ confirmer ni moom rek mooy le roi di mbalax fii ci Sénégal boobu leen nag mbooloo daan nañ boobu leen rek mbooloo mën nañ ko duppee rek main de foule nday gay foofa ca Feeling Dakar bi nga xam ne rek dañ fay def émission bi nga xam ne dañ ko rek daal di duppee topp quoi moom nag mi ngi yëkkati kàddu di tontu ñi nga xam ne rek ñoo koy saaga ci réseaux sociaux yi ngir rek bëgg bi nga xam ne rek bëgg na ko kooku di Wally Ballago Seck ci ay kàddu moom nday gay nag na képp ki nga xam ne rek da koy saaga wala sax di ko woo di ko saaga ci ay numéro yi nga xam ne ay numéro inconnu la ñoom bu leen xamee rek dina leen yóbbu yoon wala sax wa ilaa sax mu daal di koy fajal boppam laata rek mu naan kii di Wally Ballago Seck moo ko rek daal di jiiñ boobu leen nag jëf te moom rek du fëkk jëf Wally Ballago Seck ko rek teg place am te bés bu xewlee rek da koy daal di woo te moom rek dina rek dem teew Wally Ballago Seck jàppale ko ci ay concert am comme rek sœur nu muy taxawee frère yooyu la du rek la daal di yëkkati foofu ca Feeling Dakar laata rek mu naan fii ci Sénégal ñoom it am nañ droit rek daal di fësal ki nga xam ne rek bëgg nañ ko ci wàllum Ngori mi nga xam ne rek moom lay defandoo émission bi foofu ca Feeling Dakar moom nag ci ay kàddoom rek mu ngi ne fii ci Dakar nu dundee rek lii di showbiz ba tax na rek ku baax la te social rek lay def te moom rek la daal di xam ba tax na rek ki ko bëgg rek mooy nit ki nga xam ne rek dafa yor xol bu rafet ni moom ndax kat fii ci Sénégal booy def lu baax wala sax ngay def lii di social dañ la war a rek jàppale waaye waruñu la rek di la ŋaññi ba tax na rek moom Jimbori nakaru na bu baax a baax ñi nga xam ne rek ñooy def seeni vidéo di saaga doomu aadama yi ci réseaux sociaux yi koppoor kàddu yi rek la daal yëkkati moom njole taar nee kii di Youssou Jigéen du négul leen nag muy def yooyu la jëf ba tax na rek nee na Jigéen Ndour wéykat bu mag la fii ci Sénégal référence da taxale bi ko topp rek du réer laata rek mu naan kii di Wally Ballago Seck koy déglu rek du mu sa jum te rek mi ngi jàllal kii duyu sama jigéen dur mu rek yàgg fi lool te wér dañuy rek daal di ñëw ci combat bi nga xam ne rek dafa daal di jur coow lu rëy gannaaw nekk kii di Bombardier ak Balla ba tax na rek moom Bombardier rek lañ daal di jox victoire par arbitrage boobule nag combat daal dina jur coow lu rëy ñenn ci sénégalais yi di ci yëyëk a yàbbi ñii nag naan kii di Balla Gaye 2 préparé wul woon combat ba tax na rek boobule rek kàddu ñuy wax kii di liiru jaan daf ko naka Gris ba tax na moom it daal dina yëkkati kàddu ne rek sénégalais yi nañu bàyyi lu ñuy wax ndax kat kii di Balla Gaye 2 bile combat nag nee na moo tax rek mu daal di dem ca France bu na rek bu ñu duggee foofa ca arena dafa rek gis ségrégation bi nga xam ne rek mi ngi doon dox ba tax na rek ñu ci bëri rek dañ doon xeex kooku di Balla Gaye 2 mu doon nekk lu ko nakari moom nag nee na rek bettu ko woon boobu les victoire kat gis na ñu bëri ñi nga xam ne rek dañ ko doon xeex rawatina sax promoteurs yi nga xam ne rek ñoom ñoo tëgg boobule eh, combat loolu ko leeroon ni rek kii di Balla Gaye ko jox rek défaite ndax kat gis na fa ségrégation yu bëri ba tax na rek bile combat défaite gi ñu ci am rek ñoom dinañ ci jëlee jàngat bu bëri ci yeneen combat yi nga xam ne rek kooku di Balla Gaye 2 dina ko amal ñu gis rek gouverneur bu Ndakaaru def ab communiqué ni rek bëggatul gis benn dawal dawalkatu moto di yàpp nit fii ci Ndakaaru lu nu mel nag nee na rek du leen lu rek sàmm kaaraange doomu aadama aadama yi ba tax na rek nee na lii di policiers yi dinañ ci def rek lépp li nga xam ne rek war na pour rek daal interdit dawakatu moto yi ñu yàpp ay nit boobu leen nag communiqué mu ñoom nee nañ rek nit lañ comme ñëpp te rek lu ñu yor du leen dulul ab moto yi nga xam ne rek ñoom dañ ciy daan seen door pour rek mën a yóbbu dara seen biir kër voilà mbokki internetu enquête lii nag moo gënoon fës ci actu people leen ñaan rek ngeen gën a continuer di bàyyi xel ci ñu seen YouTube bi di enquête 221 et merci de vous abonner di leen dig daje ba suba incha